الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورضي الله عن شيخنا التيجاني قطب الأقطاب تاج العارفين الشيخ أحمد التيجان الشريف رضي الله عنه وأرضاه وبعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax di ko gërëm tey jii de mën naa wax ne damaa gëlëm moom wala boog eh, li ñu ma sotti àttanatuma ko fa lillaahi alhamdu cettt ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla rek moo war moo yeyoo cant ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm ndax waxuma la dara waaye jëmm yu toog rek manam jëm yi rek jàkkaarloo ñoom mbégte la banex la wala bok ñun suñu xol loolu la yëg xaw ni mako yegge non la ko ñëpp di yëgee déet la waye jëm alquran bu ma jàkkaarloo du ma am sago na ma yendok ñom ba ngon jot ñu ne jëm yoy ñu doon jangal maulana Modou Diouf alquranul karim jëm yoy jang na ñaar témir kamil ak fuk ak juroom ben ci ruuxam ga loolu loolu loolu rawatu ko ah, amatuñ bu bu yëg-yëg boobu parce que alhamdulilahi rabil alamin euh, li ñu yëg ci moom moo tax du lim nekk maam de chaque jour ma wax ko du lim nekk maam waaye nag lim ñu defal ak fam ñu jëlee dafa doy hmm? waaw léeg ma gis kuy tëgg sabar du du du ma ko reetaan waaye damay sant yàlla hmm, hmm. ma xam ne pourtant yàlla mënoon na ma boole fële waaye sabab bi tax bokk fa maulana Amadou Diouf la wallahi deug la radiyallahu anhu ndax lolé la waron don nguur nguur ak sabara ànd nguur bour la waron don waye mu gedd nguur ga gedd lepp dem uti yàlla ndikiti yow yàlla am njëriñ nguur day jeex han ana ñu ana setu bour yoy tay fo leen di deg déggatoo leen fen hmm waye mom ba leg yang ngi koy dégg te déggam gi nag day day do commencer tak sax nak ah. waye ila déynam bi bi diin incha allahu taala bu ko defee gédd googu mu géddoon yàlla may wax ni moo waral daara ji eh, kon ñun ñëpp ñu bokk jàngal ko kaamil ñaanal ko yàlla du wareef ci man waaye wareef la ci ñun ñëpp ndax wax naa ne bu tool moom kon du ñu xamante sax nag waaye li ñu takk ba ñu boole alquran rek la hmm? alquran boobu nag moo ko sabab uti ko bàyyi këram tas ay jabaram gedd ñëpp da uti yàlla chaque jour ma dégg ma wax ngeen di dégg ne ba muy uti yàlla boobu suma baay juddu na hmm? mu bàyyi ay soxnaam yëpp gàddaay bàyyi ay njabootam fan la jëm day uti yàlla dem ba dajee kabir bu mag ba Mawlana Seydi Omar radiyallahu anhu la nekkoon ci xolam ba yëpp mu yekkal ko fekkoon ne bool la nga ne daf koo këpp loo këpp dala du fa des hmm? mu këppal ko lépp lu nekk ci xolam bi moom mu ñëw biir siin tuur ko fa ba muy ñëw biir siin بوب سين لندمنا رغلونا امول كوي واخ لا اله الا الله هم دك بان كو ييبال مو ديم فا دك بوبو مالام موي كابيتال جاي كاتو سانغرا واي امول بن بن نيت بو فاني بو خامني مي واخ لا اله الا الله امول موم تشوند مو جوغي دار السلام سراج ما دنيكو فوب لا ييبال موم كين مو نيو توك فا mbolo mu bari def nañ délégation dem ci sidadio mar nako mu juss yow dang ko sanni di xanaa yow yëgg dëkk ba mu ne xanaa yow xamuloo ko mu ne leen lamp lu muy jëriñ ci biir lëndëm ñu ne ko leeral mu ne Modou Diouf lamp la Modou Diouf lamp la de foofee dafa lëndëm bàyyi leen ko foofu dina ko leeral waaye wax wali yu la ah dëkk ba dafa fekk ku dul jullit tey waaye gox ba laay wax léegi boo demee da laaj est-ce que fii mos naa mos naa am ku dul jullit wala mos na fee ñàkk ne damay faral di wax ne yàlla dafa doy waar bu njëkk faambaara lépp lu bon ñu ne faambaara sàngara faambaara njaalo faambaara leneen faambaara waaye yàlla xal bu na ko tey boo ne imam ñu ne faambaara kaamil alquran ñu ne fa faambaara wilaya ñu ne faambaara mbaax nga ne faambaara nun nun la ko yàlla xal boo ndax lan nitu yàlla ka fa tëdd wa ma fuddila al arjaaw illa li rijaali suuf si gënantewul de ña ko dëkkee ñëw gënante boo gisee ñuy daw di ziyaare ji di ziyaare ji suuf xam ah, du suuf sa la ñuy ziyaare ji hmm? këtt suuf sax ah. moo tax ñu dagg ay maraaxil yu bari ngi dem ziyaare ji ko hmm? kon suuf si doyoon na waar lool balaa moo Mawlaana di fa ñëw waaye ba mu fa ñëwee ba jëmu ji ne fa suuf si soppeeku na de hmm? kon tabaarakallaahu la siraaji war na waxoon ah. loolee dafa ñëw góor googu nga xam ne dafa tasoon këram uti yàlla uti alquraanul karim بسير عجم من دونك موجف ريرو في ظاهر ريرو في باطن الله أكبر وزيارة قبر على جم موجف سر جرنا سول أي دلوين ديكو دخي بمجه نقول في قص قبرهم زيارة باي بس نما سمام كيف كفر دو زيارة سأجو فجور خلاص سبب وجرون دم فين فو دم تمين دو فجور كن نيو يو خم نج كان مي مولانا موجف رضي الله عنه ويجيك بوبلج أمنك بوات بيز بيه Eh, di bésu ñaan eh, tabaarakallaahu ñëpp xam ne jàppuñu jàppuñu sëriñ ba eh, jàppuñu maam ga waaye sëriñ lañ jàpp te yàlla daf ñu daf ñu dimbale ñu déglu ci moom ci zaahiram ndax fekkewuñ dundam waaye ñu nettaluñu ci moom lu bari ñu jàpp waaye nag dogal nag ñu xamante ci ruuxiyan yàlla am ñu lum ñu xamal ci moom lu bëree bëri bëri moo tax dafa am benn ziar ñu dem fa magu taalibe ya kenn ku nekk jóg wax yéen xamu leen seen maam wax wax ba pare bi may wax sax tey ma ko ndax xaal ma ne leen bu kenn waxati ne xamuñ suñu maam ñun ñoo leen gën a xam foofu Mawlana Modou Diouf radiyallahu anhu ndax yéen ci zahir ngeen ko xam te ñun ci baatin lañ ko xam te xamuk baatin moo gën a wér foofu xam nga zahir kon kooku réeré wuñ ko de ak ka ñoo xam Mawlana Modou Diouf waaye dafa am loo xam ne doo ko ñemee wax euh, ci ci ay nopp ci ay nopp parce que am na nopp yoo xam ne boo ko jóoree rek mu day waar ah waaye maanaam Maolaa Juuf réeré wuñ ko xam nañ ko moo waral ñëwoote bés bii kon ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm waaye di gërëm mbooleem ku fi ñëw ak mbooleem ku fi jàng benn xaraf xam ngeen yàlla du fay du du fay par par kalima yàlla par xaraf lay fay gis nga boo nee allahumma alif ba la yàlla di fay alif ba Hmm? teg ci làmba ba teg ca làmba teg ci asaxeer ba teg ci miim ba muy allahumma gis nga benn allahumma bu ko yàlla nangoo ci ci jotaay bi xëyul xëyul ci Sénégal hmm? yàlla ñu ko yàlla nangul te xam loo ñu waaye ñaareel boo ko ñaanee te fekk nga xam ko yàlla dala koy nangul nag waaw boo ñaanee te fekk nga xam allahumma ni mu nekkee tajalli ya ci sa biir jëmu ji nga jàkkaarloo moom rek nga xam ko ndax boo ne allahuma rek xadara ba yëngu te yàlla xadaraam bi say wo ñaan mu yëngu rek mu nangul la hmm tax arif bu soye mo soy waaye waru soy de hmm arif bu sàggan ba soy mom rek la waaye mom waru soy de hmm ken du xam tajalliyatul ilahiyya xam tasarrufat yimi def ci awalim yi ba pare ngay soy déedéet waye bo wess boppu arif ba pare bëgg fa yek sa bop di ñaan yek ni ma di ñaan yàlla yàlla bàyyi la fa rek déedéet tabaarakallaahu kon salaatul fatiha liñ ci jàng ni ko Baye Mor waxee ñaari million ak lu teg lañ sotti ci ruuxu Mawlaana Mul Juuf radiyallaahu anhu allahu akbar te xoolal li ci gën a yéeme am na koo xam ne jàng na salaatul fatiha te moom maqaama yëpp xam na ko xam nga salaatul fatiha bi nga xam ne xamuloo maqaama yi sax mën naa oyof mais benn per salaatul fatiha boo xam maqaama yi ci ne boobu kenn mënu ko dégg اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي الى صراطك المستقيم هم واي محمد موكو جروميل ها موي جروي بي ييغي ديك ييب موتي بير سادو الفاتحه مولانا مرجو فاتح لما اغلق لو ndax sidani man daw mo tiji xolam ba lepp lepp lu fa tiji won mu tiji ko def ci leru la ilaha illallah hmm bayiko mu ñew famara képp koo xam ne sa xol dafa tëju day tijji sa xol bi def ci leeru laa ilaha illallah loolu moo tax mu doon wax ne Mawlaana Siraaj Omar xamal na ma ba xamal ma rasulullahi te dip ma xamal ma rasulullahi soo bët mosul teggeeku ci moom fekk xamuloo laa ilaha illallah sa xol bi mënut a def loolu mukk ci àll da ngay foog ne rasulullahi da ngay nelaw di ko génn ci kaw wala wala da ngay nelaw mu toog ak yow déedéet waaye rasulullahi dafa ànd ak yow di di nelaw ngay nelaw wa ñu war laa yee yeeku yéen ñëpp ngeen ànd xoole bu ko defee sa xol bi mën a yëg lanay laa ilaha illallah nga nangul yàlla ahadiyaam gi nag moom kenn rek feek dajawoog mo euh, ku mel ni Mawlana Mamadou Diouf fatilma uxliqa mu tijji la sa xol boobu mu mun loo d' accord ne yàlla kenn la te feek d' accord ne yàlla kenn la yaa ngi ci maqaam shirk léeg-léeg damay dégg euh, ndeysaan yéen i mbokk ñuy wax ne shirku shirku shirku euh, mu mu jaaxal ma lool toog ci dëkk diggi maqaam shirku di tere nit ñi shirku hmm? loo def ñu ne shirku haram sirku nangam nangam te ñoom ci diggi maqaama sirku lañ toog feek yaa ngi yëg sa bopp digg ne ku nekk nga ko xam ko rek yaa ngi bokkaale yàlla yàlla dafa ne laa ilaha illallah faalam annahu laa ilaha illallah mu ne yow miy sàggan xamal ne laa ilaha illallah waaye loolu noo koy xamee faalam la yàlla wax mu ne demal nga xam ko waxul nga wax ko de waxul qul laa ilaha illallah de waaye dafa ne faalam laa ilaha illallah annahu laa ilaha illallah xamal ne yàlla dëgg-dëgg kenn xamul ku dul moom wa ana axtartuka fastami lima yuwa innani ana allah la ilaha illa ana kon faabud nii hmm? <laughs> mbokk yi yonent yëpp loolu la ñu woote yonent amul ko woote wut laay rek ñëpp laa ilaha illa allah lañ woote waaye wootin ba wuute euh, alhamdulilah gaa yéegal lañ maqaama yi waaye man damay wàccee du ma du ma du ma yéegal ñaari tànk fi tanku sharia ak tànku haqiqa waye ben munul ben munul dem bay sa borom nak dedet ndax dara ju fi am na ñu fi di jàng sharia xalaatuñ xamal len la ilaha illallah fek tafsir ñu alquran dedet ndax dañu bëgg ku fi ku fi genné dox jaar tanki yeb nga dox ci shariatu muhammadiya waye dox ci xaqiqatul muhammadiya waye dox ci la ilaha illallah kon dañ lay bàyyi ba nga jàng téré ba pare wa ñu tëjoo yow ci néeg gàjj lepp lu fa nekkon defal la lu bes nga yek ni kon ni du lee li la waye nga doga nek nit fo dem doto yes dedet amul kuy top molana mo Diouf radiyallahu anhu top ndigalam sa xol ba geureum ko ba nga joge fi yes muk ci àdduna dedet kon de la nga wara jël jëloo ko wala nang ko wara topé topé toppee woo waye boko topé boo jëriñu amul kep kenn ko xamne da nga téye la ilaha illallah torox munu nekk ci aduna hmm yaay la ben la ilaha illallah moy yëngal hadara yàlla bi jibril neena mune musuma wacce ci rasulullah bat bu gën la ilaha illallah mu mune wacce na ci mom ay kamil kamil ay bati bat waye bat bu gën la ilaha illallah musuma ko musuma ko wacce rasulullah ne man musuma wax bat bo xamne gën la laa ilaha illallah wa kon ñun duñ jema a wax baat boobu kon ñun tamit dañu jëm a wax baat boobu ñuy wax ne laa ilaha illallah te nee na laa ilaha illallah boo ko waxee mu yëgg ca xol ba rasulullaay wax de mu ne ñeenti junne kiiraay lay dóor bu mab benn laa ilaha illallah bu dëgër mu ne lépp lay mab waaye laa ilaha illallah bu dëgër ci xol day mabbu àdduna àdduna yëpp ay dee kenn rek ay dund mooy allahu subhanahu jalla wa ala kon xaal boobu ci la maam moo dundee moo tax mu nekk faati li ma ugliqa te moom naasiril xaq bil xaq la woon tamit nag Euh, salaatul fatiha nga gis ne moom duma ko topp ndax kon kon dey guddi waaye dama bëgg a wax ne kiñ ko ñaanal yelloo na ko ndax ni ni ma xaamee rabbaloo ci biir salaatul fatiha noonu la nekkoon ci biir jëmam ji moom noonu la ko xamee woon waaye boo ñëwee ci laa ilaha illallah tamit ñu def ci un million et quelque baatu laa ilaha illallah niñ ko ràbbee ci sa biir jëmm ji noonu la ko doon gisee xarfan par xaraf hmm? xaraf par xaraf ni ko yàlla daggee dugal ko ci sa biir jëmm ji ràbbale ko pour nëbbu ko noonu la ko doon gisee te noonu la ko doon xamalee jaamu yàlla hmm? damaa toog ma taxaw nii rek bi mbokk mi di waxtaan eh, yéeg ci leer bi ma gis pays yi pays yi bind allahuma hmm? pays yi allahuma la bind ñi ñi am baatin xool nañu allahuma bu yàgg waaye ñi amul bëti baatin ay tànk rek lañu fi gis hmm? waaye gis nga laa ilaha illallah noonu la mil si sa biir jëmm ji buñ la dajalee kii raay boo ne nit ki nga gis laa waaye li sang bi wax boo duggee ci maqaamul asma nga gir as asmaullahi nit ñu doxee ci kaw suuf si di dem hmm? waxoon naa fi benn bés ma ne da ngay jékki rek gis rahmaana ngay dem rahim di dem allahu di dem benn waaye dégg ko ni juuf léegi dafa dof moom du wax lu yem mukk lu rëy rek lay wax wax na dëgg de lu rëy la waaye tabaarakallaahu am na koo xam ne réewul ci moom te am na koo xam ne loolu rek lay xaar hmm? léeg-léeg bu may tafsir nit nit dana ne ma sëñ bi xam nga lu tax may déglu sa tafsir bi mu ne ne ma firi bi nafu beeg yooyu yëpp utilisé wu ma xaw xaw ma yitteelu ma waaye lenn rek lay xaar aaya bu xaqiqa yi mu ne boo koy jub waxagoo sax damay bëgg hmm? ndax mu ne man loolu rek laa fay xaar waaw moo tax may wax ne man ni may tafsiree damay tafsiral ñetti nit amna ko xamne xam jëmu neexitu baat bi rek mam lolay xaar ci tafsir bi waxin bim koy wax amna ko xamne tafsiru sharia bi pour mu am ci njëriñ rek la ci xaar waye amna ko xamne tafsiru la ilaha illallah lay bëgg hmm gis nga ko kon duma wax mu leer nak waye leeg nga junj ba nga xamne ne dana ëpp nopp sharia waye lolo koy dimbale mu dem gorlu ci ba xam yàlla ndax ku ne jaar na ci maqam bob wa damay faral di wax ne amna jamono sama sama darsu lolou moko don tardel contre ñuy wax laa ilaaha illallaah damay di nga lu ne dinaa ko wax ci àdduna aaya bu ne ko indi waaye ba ma dimbalee ba ma yegg ci maqaam laa ilaaha illallaah ma yëg ne aay yi ma doon indi di contre ni ko aay yooyu moo saxal laa ilaaha illallaah hmm? kon kenn ku ne dina fa jaar moo tax bu fa ñu tollee weddi la bu ko def muy problème weddi baax na ku ñu weddiwul doo dem déedéet rasulullah dañ ko weddi moo tax mu am li mu am Cheikhul Tijaan indi lu indi ñu ko mu xam li mu xam Mawlana Siraj Omar radiyallahu anhu dafa indi lim indi ñu weddi ko mu am li am Mawlana Modou Diouf Fane Bara ñëpp ko weddi woon moo tax mu am li am kon ñu la weddiwul doo doo dem de parce que buñ la weddiwul yoroo leer hmm? nit ñi kon buñ la weddiwul da ngay topp ñoom liñ bëgg ak la seen bànneex nga di ko wax waaye doo wax dëgg waaye boo waxee dëgg nag souvent ñu contre la waaye ku la contre yëgoo ne ki la gën a contre bu léegi mooy gën a nekk sa soppe hmm? ndax dafa xamul contre nga contre googu mu la contre la métti de dedet dafa xamul yaronte bi salawaatullahi alayhi non la waxon gaaya jibril ñëw ne ko dama bëgg alak wa dëkk bi ndax liñ la def mu ne dedet bayil leen dañu xamul hmm waye gis nga bañ xamé tabarakallah ñëpp ñëw suku ci ronam kon dina la dénk yow mi wote eh non la de bul bañ ko la weddi waye bu ragal ko la weddi nit da lay weddi nga diko ré ree xam ne ndeysaan way la jaron nafa bayiko fa rek dina ñëw waye yow nekkal ci li nga ne deug ji nga ne gis nga leeru la ilaha illallah xam nga nu mel almet boko ci biir mbopp almet boko ci biir mbopp non la mel dara du dess lépp lay taal ndax amul lu ko meuna fay moy leeru la ilaha illallah waye ne ci rek yego ne rasulullah makka la ilaha illallah kessa la fa wote motax makka gëna mit mit mit na xamulone hmm makka taw yi rek la fa wote faabudullaha la tushriku bi shay'an bokkaale leen jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaale dara loolu lool loolu loolu la xol mënta dégg waaye loolu moo diis ci nopp yàlla kese saa woo ko wootee am problème hmm? moo tax bu bu leen foog ne day yomb de dem rek ne laay laa ñëpp nangul la loolu dafa yomb de mënul ne de hmm? waaye nangul ñu lay sànni ay kaddu dañ ko sànni woon rasulullahi salawaatullahi alayhi yaa ko gën gënuloo ko tolloo ko sax ci we waaye dañ ko sànni woon cheikhuna tijaani sharif yi Jaami fatul ilaahiya buñ ko dikkalee ñi ah. mu jàkkaarloo nit ñi day daw saa yu xëyee day dellu ci àll bi bëggul sax gis nit ñi rasulaay feeñu mu ne ko hee toogal fi nga toog nga xamal jaamu yàlla nga xettali leen ah kuy yàbbi li nga yàbbi seeram xalaat na safara yàgg naa ko wax ma ne du astaghfirullah bi ñu jàng du saatu faate bi du laa ilaaha illa bi boo ci dee jëriñu la dara ndax adduna bi jëriñu la tous dañuy wax ne tariqa bi boo ko jëlee maam ren ba déwén te gisoon ñu ne ñu ne tabaarakallaahu ndax li ci nekk ci mbaax wax nañ dëgg kay waaye du nekk ci benn jëmm joo xam ne ni jëmm ju ko xam la xaqiqiyan nit bëgg ko xalaku mu mënul ne mukk ci àdduna ku ko bëgg texe waaye jëmm jooju kum xool nga am ngërmande Mawlana Seydi Hadji Omar radiyallahu anhu ah dafa am ben way bo xam yalla mayu ko njabot mu ñew fekk mu tok mu di mu di ko ñaanloo di ko ko wax si ndaw xol ko ba yag mu ne ko xol na la bëtu yërmande lolo ñaan gi de mu ne ko xol na la bëtu yërmande demal ba tay sëtam yaa ngi fi kooku hmm? bëtu yërmande la ko xol ba tay sëtam yaa fi dem na ci sëriñ bu ne ta am doom ñu bolé ko si mar mu ñew si rajo bindut ديرت وجعل شفائي في سؤل بلا قلم ولا دواء يا يا بارئ يا الله واو واو فو امول بند امول نيان داكاي خول مونيكو خول نالا بيتو يرماندي واجي جانغرو با نيكون سي موم روتيكو مو تيم سوخنا سا جانغرو با نيكون سي موم روتيكو دوم هم هم كوكو كوكو دو دو سيداي مان داو زاير دي سيمنا زاور خولوكو دي واي امنا فوم تولو با خول كو بيت مونا جيرين كوكو ها waye gis nga la ilaha illallah bu nekk ci sa bir jëmuji non lay mel ben ben nitu yàlla mu ne man manatuma tekkali ko la yàlla ndax khalatu dammi mu ne laa ilaaha illaa dafa jaxaso dertam ji waye khalatu ruhi dafa jaxasoog suma ruhi gi waaye xaalata jismi dafa jaxaso suma suma jëmuji waye mané ma ku fa yeggul do la go julit hmm la ilaha illallah fek jaxaso doo yow nekk go julit kon liñ bëgg a wax mo la daana mu Juuf radiyallahu anhu ci la doon dund waaye bismillahi rahmaani rahim liñ ci jàng waaye nga xool ba siin mimara mu di xam-xam yëpp Mawlana laa karamallahu wajha ne benn tomb baa mën na cee bind ay sëfu géléem te du xaaj waaye bu ma doon wax man ma ne benn tomb baa ay millions yi millions yi géléem danaa ko si bind te du xaaj hmm? waaye mbooleem ku xam yàlla nga wax ko te muy dëgg ci yow baa bi fan lay jeexee Hmm? bala jeex nga jeex de baax bi balaa jeex rek nga jeex gis nga ko te babo moy sin te sin bi moy mimara ñetti xaraf yi mooy àdduna baa siin mimara motax serigne bo xamne dafa la jangal ba nga mokal mu jangal la xam-xam ba nga tafsir nga ne ko serigne bi bala bu nga jurel ma mu ne ah loolu mom mu ngi ma ragul serigne de genn walu serigne la ma ragul serigne waaye serigne bi dafa lay jangal par kalima ba nga mokal mu jangal la tafsir par kalima ba nga mokal mu commencé ak yow par haraf alif lii lay firi laam lii lay firi miim lii lay firi mu ngi nii ci yow hmm? zalikal kitaab gars yi ne dañ ko abbal firi ay ay hadal kitaab xanaa yàlla xamul hada alif laam miim hadal kitaab yàlla mënu ko wax yàlla yàlla yàlla mën na ko wax di yàlla zalika la wax nañ bàyyi zalika bi mu dem zalika bi moo wér hasa wérul donte mu fassiru na yëpp hasa la ñun hasa lañ fay nattale hasa ba wérul yàlla li mu wax moo wér te mooy zalik alif lam mim ñu ne a nga ne zalikal kitab bo xamé alif lam mim lool lay junju nim nekké ci yow mu ne zalika al kitab moy téré ci ray ba fi khudal lil muttaqin bokki al qur'an day dox Serigne Cheikh néna ba day dox bu ba doxé nga mëna xam jëriñ la waye ba dox bimu dox mo fi indi ñetti ñetti bañu signe yoyu ñetti bañu signe yoyu dox gimu dox mo fi indi mim bobu yego ne loolu ka fi ne dara du ko jéxal kon nañu góorgóorlu ci yàlla walaay buñu tarlel yalla nit moomu ko ah man bu ma toppee yàlla kon kon damay nangul juuf wala damay nangul juuf mooy kat juuf moom yàlla ah wala wala moom laa ilaaha juuf kañ la juddu fekk fi laa ilaaha illallah kon moomu ko waaye naka noonu keneen man bu fekkee de maa ngi dem uti laa day mel ni kon ñële moo tax mu uti ko ah? boo wutul laa ilaaha illallah ci àdduna ba la jeg yàlla wallaahi mbugal nga fay jëlee laa ilaaha illallah mooy baat bi xam ne moo lay sauvé ci biir safara yóbbu laa aljanna hmm? laa ilaha illallah ku koy wax ku ne yaa ngi yaa ngi jënd yaa ngi jënd billet pour aljanna hmm? eh, maa ngi koy wax keroog ci conférence ba le dixiyatul kalbi ci xisa bu gàtt yéefar la boo xam ne ku gën a yéeme xamut nee na moom ci bopp rek moom rey na juróom ñaar fukki doomam yu jigéen ñoo xam ne ku juróomu rendi la ngir lan ngir bañ mu ne moom dafa beewoon maanaam bañ na ñu ne di diw de goro diw la ndax moom buur la mu ne moom bëggul doom kenn takk ko doom bu mu jën jur mu nekk jigéen mu rey ko ba mat juróom-ñaar fukki doom mu am juróom benn fukki at ci kéeféer rasulullahi salaa salaam toog néegam di ñaan ne yàlla dixiyatul xal bi laa bëgg eh, laa bëgg nga sànni leer ci xolam ba mu jub fi mu sànni fi mu ñaanee ci fajar gi leer leer gi dem rek dóor xol yi dixiyatul xal bi mu ne ana sayyiduna muhammad gars yi ne déet xanaa dixiyatul xal bi moom moom dafa jaxasoo wala mu ne waaye wala ma sayyiduna muhammad laa wax خوس دور بول بي موجو رك موتي يونتي صلوات الله عليه فك صحابه انا محمد منكو ماغ منكو غارال ما اسلام لان موي اسلام منكو موي غا لا اله الا الله محمد رسول الله دية القلب لا اله الا الله محمد رسول الله واي دي جوي اندك جوي ميتي ميتي يونتي نكو لوي جوي لله ndax ñoo gi إسلام ñu ci islam mu la metti wala lan la mu ne yoo xam ne sumay doom lañ te xaw ma ndax yàlla dina ma jéggal wala du ma jéggal yàlla ñaanal ma yàlla sa borom bu nee ma rey suma bopp ma rey suma bopp euh, bu nee ma joxe sama alal yëpp ma joxe ko gis gis gis nga bi mu waxee lii yonent bi dafa gëlëm xamut lan la koy wax yàlla yónni jibril jibril na cëp ci kanam rasulullah ne ko looy tiit kii kaddu gi ko wax laa ilaha illallah arasa ngay jaayu neen nee benn baatu laa ilaha illallah wax juróom benn fukki at yi mooy yàlla yëpp yàlla baal na ko waaye benn baatu laa ilaha illallah bi mu wax juróom ñaar fukki bakkan yi mu rey yëpp yàlla baal na ko yonent bi jooy sallallahu alayhi wa sallam waaye dara du moom hmm? gis nga yonent la doon dóoree waaye mag ñu baax ñi sir boobu lañ doon duree gars yi xa yëgoon ne laa ilaaha illallaah bu nekkee ci sa biir xol bi sa kàddu gi marto la buy fëgg ci biir xol bi benn conférence bi ma leen def Jurbel bi ma paree benn mbokk dafa ma woo ne ma benn jigéen da may laaj mu a yow sa baat bi loo ko loo ci def mu ne mu ne yow bi yow bi ngay wax maanaam moom amatul maîtrise mënta noppi xamam mënatu la wax daa mel ni baat bi dañ koy cuub ma ne ko baat dañ koy cuubee ma ne ko waa dañ koy cuub kay waaye cuub gi mooy laa ilaaha rek ak saadul faati hmm? waaye gis nga am na am na dimension boo ci tollu sa kàddu gi marto la ci biir xol kenn du ko attan hmm? loo dóor mu dajeeku waaye nekk leen ci laa ilaaha illallaah ci la mag ñu nekkoon ci la rasulullaah nekkoon ku raw ci la rawee billaahi sharia bi raw lawul kenn gis nga lii eh, maanaam dafa dee gis gis nga balaa balaa dund nga dund yow damay gis benn téere mu bind mu ne téere yëpp a dee waaye dafa juum téere bi deewut nit nit ki moo dee waaye boo dekkee rek téere bi dekki parce que alxuraan dafa dee ci yow dee gi dee ci yow moo tax xamuloo xaqiqa ba xamuloo leer ga waaye saa woo dundee boo ko tiimee mu dund yégoo boo ko tiimee wax ci lu kenn déggut wax ci lu kenn musta gis fo xam dañ ko bind ci téré boy wax di di xalat téré bam nek waxago dara da ngay wax ci fadul ilahiya muy wacc sa biir xol ngay wax ñep di yek te li nga wax moy deug hmm lool liko mun moy la ilaha illallah leena dañu bëgg nax rek serigne <laughs> he dañu nax hmm da nga dem rek astaghfirullah sadi fatiha la ilaha ñu ne yem ci dina bax parce que nangama na wallahi du hmm aljanna maa la garantir aljanna nangama naam loo garantir garantir ma àdduna àdduna bii garantir ma duma fi yàq dara rek man loolu rek baax na garantir ma ko mënoo koo garanti léegi fa nga xam ne rëy bu ci yàlla nga bëgg koo garanti du dëgg hmm? déedéet kon bu ñu nax sëriñ damay wax ne boo fay dem yàllaa tax yaa ko gën a mokkal alquran yaa ko ëpp xam-xam fuuf loo fa wuti ngay dem alquran si biir dënn bi ba ngay dem xam-xamu sa bir dënn bi jàngoo fa alif jàngoo fa baasi mi mara jàngoo fa qala nga dem ne ko yaay suma sëriñ ci lan la nekk sa sëriñ ndax ci yaama neex rek liggéey xat yoon yi rek ndax loolu mooy sa sëriñ loolu du sëriñ de loolu taxul yoon Cheikh Diane ñoo de loolu taxul yoon tariqa bi ñoo de jeene sëriñ ci lan mooy la nga jàngoon de benn pàcc la waaye kaay yeggal la ci benn pàcc bi benn pàcc bi du loo xam ne dañ koy jàng ci ay téere waaye du ñoo du loo xam ne la ñuy liir waaye loo xam ne xol koy gëq def ko ci biir xol xol ba dékku ko mu lay jox ngay nganam nganami ngay nganam nganami ba yegg ci xadru ilaahi jékki-jékki gis ne di ko dara nekku fi laa ilaha illa allah maqaama xaqul yaqin hmm? nga xam ne kii sa sëriñ la kooku sa sëriñ dagg ndax wan na la loo xam ne kenn mënatu laa woon loo xam ne ëpp na ko waaye doomi aadama mënatu laa nax gisoo boo ko xamee rek léegi ñu commencé naan kii daa commencé diingat dafa jël yoonu pom jëloo sa benn yooni bopp la nga xam ñoom la xam nga xam ñu bañoon nga xam ko ñu nëbbu la ko nga góorgóorlu ba yàlla dimbaloon nga nga xam ko wala sax nga gënoon koo xam moo tax ñu commencé laa dingat diw laa commencé dingat dafa dingatoo de waaye li nga xam moo di dëgg li nga xam moom la xamoon ñu bëggoon ñu yeew la nag def la jaam nga topp leen rek te duñ ko xamal xamal ko seen doom seen doom di wax nga yéemu rek cey sëñ bi ak a yéeme laa ilaha gisoo njabootam bi billaay léeg-léeg nga gis ku ñàkk fulla ah sëñ bee yéeme rek doom ja yéeme rek waa yow doo mës a yéeme sa doom du mës sa yéeme waaw ba kañ ndax dañoo bind famille yoo xam ne ñoo war a baax yi yeneen famille waruñoo baax ñoo war a jub yeneen famille waruñoo jub loolu du dëgg de alxuraan waxu ko Cheikh Tidiane indiwu ko benn waliyu indiwu ah mooy ne ku ne mën a baax ku ne mën a doon waliyu waaye damay topp sëriñ bi ngir mu def ci man leer goo xam ne gannaaw bu ñu paree yàllante woon dootuñu gisanteeti wallaay maag yéen ku ma ci xamal boo boo foogee ne boo demoon junnee xat dinaa yëg ne sax nangam déedéet ndax li ma gënoon yëg li ma gën a neex sama biir xol bi rek ma yëg ne yow laa ilaaha illallaah def naa ko ci yow bu la neexee bul ma nuyooti bul ma xoolati bul waxal ci man dara waaye yow réer gi nekkoon ci yow na dëgg rek bànneex boobu moo dàq lu ne ci àdduna hmm? kon bu leen foog ne maanaam lii sax bu bëgg ma sax nit di wax ñu jàpp ne kii maa ko xamal déedéet damaa bëgg ñëpp di toog di wax ci laa ilaha illallah waaye bu kenn xam ne kii moo xamal kii kii moo xamal kii waaye ñun ñëpp lañ wax ci laa ilaha illallah parce que nag ñun ñëpp a yem ci hmm? gën a góorgóorlu rek moo fi ne gën a labu fas bi waaye ki la yóbbu tanewu la ci yàlla daf la woon yoon doxal fekki ko fa xadara ba mu ne bu yéexee nga romb ko bay ko fa Hmm? bu góorgóorlu ngeen góorgóorlu dem asayru fillah ilallah alallah billah yàlla noonu lañ koy doxe yàlla rek fi ne dara néew fi yàlla na yàlla bokk ñu dimbale ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp eh, Seydi Omar Ndiaye eh, comme ni mu ko waxee sant nañ ko bu baax gërëm ko ñaanal ko yàlla bu baax bokk la moo xam ne comme ni mu wax sama tànk bi keroog ba muy dëgg suuf ci mbuur moom laa njëkk a gis moom a gis moom moom njëkk a jox loxo waaw waaw Seydina Omar ñu waxtaan ku fas kóllëre ba léegi daf koy sàmm liggéeyam la dagg ñëw teewee jotaay bi dafay yendu ànd ak yeneen mbokki taalibe alhamdulilah kon buñ amoon baat bu gën jërëjëf dinañ la ko wax de waaye baat boobu rek lay yëg ne moo nekk ci xol bi te tamit buñ la ko waxee alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf waaye sëriñ Tambidou moom ak daaraam yëpp ñu ànd ndeysaan yendu fi waaye damay wax ni ñun daara yi moom fa ñu lay alhamdu maanaam sant kenn rek mooy sant sa bopp waaw man damay wax ne man yëgu ma ne ay daara fi dama yëg ne ñëpp man la ñu dimbale kenn kenn ku nekk rek tool bi moo yaatu kenn ku nekk nekk ci benn côté di fa béy te loolu mooy xaq xaq tamit nag ñun ñëpp benn tool la te tool bi mooy islam rek lañ lañ bëgg mu ñoŋ kenn ku nekk di bay kon ku ma sant rek maanaam sant naa sama bopp ah, sëriñ Seydou Ousmane Ndiéguène jógee ba Gàmbi ànd ak soxnaam xëy la alhamdu moom de bés bi tuutalu ko de waajale ah lu rëy la ci moom waaye ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm yiw yi eh, jéego yëpp yàlla nekk yiw sa biir xol bi waaye laa ilaaha illallaa bi yàlla gën a dajeeku rek nag leer gi yàlla na faydu rek nag di jóoru ci xol bi rek ba koo xamal mu xam koo jubal mu jub bi xaqi laa ilaaha illallaa yàlla na yàlla def ko eh, Seydi Mouhamed Ndaw Seydi Mor Dieng ñaar ñii <laughs> presque alhamdulilah rabbil alamin ñooñu moom eh, maanaam xaw ma nu ma leen santee di xam nga nit ki boo ko bëggee sant te xamoon noo ko santee dafay doy waar waaw parce que lu ma def ñoo koy def lu ma wax ñoo koy wax kon faj la alhamdu euh, ah ñoom daal moom faj la alhamdu kon naal la ñaanal rek bés bi jëf nañ ci loo xam ne bu leen foog ne man def naa ci xaalis bu de xaalis bu bëri ci dem nag waaye euh, jëmm yëpp ñu bari kenn ku nekk jox na ma loo xam ne defar na bés bi fay la alhamdu yàlla yàlla fay leen am ñoom bugg ñu ma wax ko kon moo tax duma ko mën a leeral bu baax eh, Seydi Diané tabaarakallaahu li ma wax léegi rek yàgg ma di ba muy commencé moo tax ma koo romb ñoom tamit jaxasoo nañ ci xol foo xam ne benn lañ dootu ñaar gis nga tey lu ma yëg ci seen daara yi ñoom ci wàllu safaan ni ma koy yëgee bu xewee fii lu ko raw sax noonu laa koy yëgee waye dara june nak suma xol bi non non la ko yëgee parce que dama yëg ne foofu bu foofu màbbee wala mu am problème rek fi la jëm ci hmm motax alhamdulilahi rabbil alamin du man jappuma ni dara yi ay dara la waye ben la ko jàpp bët bobu la len di xol waye ñu ñaan yàlla xale ñew nañ fi suba jàng ay kamil yu bari xaraf yoyu ak yiw bobu yalla taal dara ci yalla ko aduna yeb deg bi haqqi la ilaha illallah euh Seydi Madi mom tabarakallah ku xamul da nga yaakaar ay doom bajjal lañ waaye noonu la yàlla bindee ndeysaan euh, ñun gisuñ ne jaar na fi jàng wala jaar na fi ñu dimbale ko ci dara déedéet waaye li ñu xool ci moom mooy mbokk gi mbokku alquran bi ak pas-pas bi nekk ci moom ci alquranul karim ak bëgg-bëgg bi bët boobu laa koy xool moo tax boo boo ñu fekkee ñu toog boo xamul dangay am loo yaakaar waaye fekk déedéet fa faj laa alhamdu noonu la baaxee ah yonent bi salawatu alayhi noonu la don def ci biir saaba yi noonu la kafe ak ñom di da ñom ci lool dafa bax Seydi Madi ñu ngi ñu ngi bég ñu ngi contane lool parce que yek nañ ne bu ton ngant fi nga yenn alhamdulilah rabbil alamin daw waxuma ko ko mu am ci naqar lool gis nga ren ji presque barki dem la ko dogo euh, wax ko ko xel lay fatu waye bés bi nak mo demé non parce que ñu bari bari waxuma ko ci kenn man dama yëg ni ahlu quran rek tabaarakallaahu comme ni ma ko waxee amul kenn ku ma koy wax mbokk taalibe rek kon Baye Madi bëgg nañ gërëm nañ ñu ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla na yàlla taxaw yokku daara ja ci zahir yokku ci baatin ahlu junudullah eh, tabaarakallaahu yéen ay soldaaru yàlla ngeen de damay wax ne loolu nekkul tur bi tur bi xooluma ko waaye jëf ji ak xaal bi ah, ah. waaye mooy junud mooy jëmu bi laa mooy soldaaru yàlla soldaaru yàlla firi ko moo di kan moo di jàmbaaru yàlla ci yàlla rek lay dox ci yàlla rek lay wax waaye ci yàlla lay dee ci yàlla lay joxe dooleem ci yàlla joxe ñaqam ci yàlla lañ koy xas ci yàlla lañ koy gërëm ci yàlla lañ koy bëgg ci yàlla lañ koy bañ moo di yéen seen lépp yàlla la hmm? euh, man noppalu naa ci lépp ndax yéen waaye ñu ngi ñaan yàlla sunu borom Eh, yàlla yàlla gëmut de te yàllaa ngi xoole waaye yàlla yàlla dafa leen jàmm waaye li ma li nekk suma xol bii ni ma leen ko bëgg a yekkalee yàlla nag yàlla def ma man ko ba ma yekkal leen ko te ma ànd ak barke ngi dem jëriñoo jub kenn ku nekk bët ba ma lay xool rëy na lool donte donte nag du ma wax ci yéen parce que bëgguma wax cat di jiitu waaw moo tax lu bari du ma wax wala sax may tudd tur bi déedéet waaye ahlu junudu laa rek gërëm naa ñëpp eh, Seydou Ndiogou suma suma suma suma doomu ndey la tabaarakallaahu nekk waaw comme li ma wax daaw aalimul allaama waaye am na beneen maqaam bu yokk wa aariful billaahi te nag woyof toy mel ni koo xam ne xamul baa foo dajeek moom mu jox la lépp wàcc te fekk lépp mooma hmm? yàgg na fi lool woyof lool fay la alhamdu mën nga koo def lool lu ne ci àdduna ah? te amul lu ñuy tiim ci téere te nekkul da koy jàngale waaye boo doxoo la moom ci pays yàlla yi nga gëlëm xam ngeen ci dara dégg ngeen laxdari bu bees ngeen fi dégg laxdari bu bees dégg ngeen ko lax laxdari boobu mos leen ko dégg de laxdari bi mu firi ah ah kon alhamdulilah kon kon alhamdulilah rabbil alamin kon ñu ñëpp dañoo toppaat waaye moom moo waxtaan sëriñ bi jërëjëf yàlla na yàlla defal la jàmm suñu baay bi suñu baay ji di Seydi Thiam Mamadou Thiam euh, moo ñu jox fii ñu ne suba ba léegi la fi toog waaye gis nga bu leen foog de eh, góor la ci biir góor yi hmm? daa làqatu déggoo mu ne moom soldaar la dégg la kay soldaar la mooy li ma wax ci yéen moo ne ci moom soldaaru yàlla la <laughs> waa ji soldaaru Macky Sall de soldaaru yàlla la leeru yàlla moo nekk ci xolam bi waaye ci biir laa ilaha illa allah aarif billah la hmm? waaw fa lillahi kon moom tabaarakallaa ci ñun la bokk waaye sax mooy suñu njiit te tamit alhamdulilah yàlla yàlla féq fanam yàlla yàlla dimbale ko bi xaqi laa ilaha eh, mbooleem kuñ tuddul eh, suma suma suma yaay eh, suma yaay bopp mu ngi jógee Kaarang ba fii ngir bés bii waaye moom dafa xam góor gi moo tax Mawlana Amadou Diouf la xam moo tax dama wax ba sonn bul ñëw waaye dafa dag man damaa jékki-jékki rek mu ne ma maa ngi apias ma ne ko yaay pour lan mu ne ma yaa ma a bëgg mbaax ni nga bëggee defal sama am mbaax noonu laa ko bëggee ma ne ko a toog mu ne ma yow mënoo toog yow la ma tax defoo ko xaw nga koy nga koy def ma wi dem ma noppi hmm? ma yëg ne alhamdulilah ibrahim waaye góor gee ko teewoon ci loxo ne ko boo doon góor ma def ci yow loo xam ne adduna yëpp dañ la dégg waaye naa la ñaanal yàlla doo torox fii doo torox fële moo la la mul juf ma ko waxoon loolu hmm? waaye ak leneen loo xam ne buñ ko waxee dafay doy waar ah alhamdulilah rabbil alamin waaye tabaarakallaahu yal na teraangam yokk daara ji eh, du ñun ñun rek ngeen di gis waye mom la de wa wa jund la xamne mbolem mboolem yu nekk fi ñukoy koy mo koy jënd bisu daara ji bu joté ñaari auto lay wacce lepp bagage dama ko wax ne yaay man dama dama rus nga jël dara di jox mu ne man joxuma la mm-hmm. man yalla la di jox muy haqiqa ñimu ñimu ma ci wax dara mm-hmm. way daara ji nga xamne sama daf ko bëggoon sa bay bëggoon ko ma ngi dundu lu ma am dinaa ko ci def waaye yàlla dundam yàgg yàlla dundam yàgg euh, gis nga butoon moom daaju du mel nii de hmm? jàpp na ci lu bëree bëri bëri kon il faut ma sant ko sant zahir donte baatin bi alhamdulilah rabbil alamin waaye maa ngi ñaan na ma ko ñëpp ñaan na mu gudd fan waaye yàlla may ñu liñ liñ bëgg ba ñu defal ko ko moom xol bi li bëgg ci moom xaal bi nag mënu ma wax ci lu bëri xam naa léegi tamit yàq jotaay bi yàlla yàlla def jàmm waaye ànd waa waañ bi dañoo woor di sonn lool ci waañ bi ndeysaan bëccëg ba léegi yàlla yàlla fay leen ci barke Mamadou Diouf radiyallahu anhu lépp lu ñu fi jàng yàlla ñu ko bokk bi jaahi Mawlana Muhammad salawaatullahi alayhi bu mu doon wax daal damay wax ni damaa gëlëm xaw ma fu may commencé xaw ma fan laa yem yal na yàlla gërëm ñëpp ma jàng xarnu wi ñu jeex euh, Mouhamed Faye euh, incha allah léegi waxtaanu guddi bi ci sa loxo la nekk dégg nga temps bi dafa dafa jeex waaye waxtaan guddi bi yaa bu soobee yàlla eh, kon ñu xam ne dañu leetul xadri incha allah yal na yàlla def jàmm ñu bokk teewlu xaajo yi xol ma karim bi karim ñu ngi ñaan képp koo xam xaajo yal na eh, na teew lu ci biir xolam ba ak lu mën a doon ñu ñaan ci barke Mamadou Diouf hmm? waaw waaw yawaaqit juróom-ñetti yawaaqit lañ jàng laa <laughs> ilaaha illallah juróom-ñeenti yawaaqit li mu neuf eh, kenn ku nekk xaajo ba nga am def ko sa biir xol bi ñu ñaan yàlla ci barke Mawlana Modou juuf ak barke xaal bii ñu toll ak barke bés bii ak barke li ñu fàcc ci leer kenn ku nekk fa nga ne ñëwal jege si nga def sa xaajo sa biir xol bi ñu ñaan yàlla ci barkeem yàlla fajal la ko yàlla na ko yàlla def te am nañ ci yaakaar bay Bass xalifa xalifaam ba Seydou Bachir Diouf moo la war a njëkk a nuyu ko ziar bu baax dama ne mu ne dafa am benn benn céet ndeysaan mu ne ñu dem ba ñu subale céet gi dara lu mu def ci céet gi amagu fu mu làmb mu dëgër mu ne mu jàpp ba dem ci xabru ba ne ko maam bu fekkee ne li ñuy wax ci yow dëgg la am naa am nga tarfatal ay ni loo def ci yàlla mu nangu ko gàcce gi yëlla bu ma dal rek moom génn dem mu ne bi mu génnee dem toog ci déeg bi daa jékki-jékki ñu wàccee ñeenti béy ma ne ko loolu est-ce que nekkul maam nga yaakaar <laughs> mu ne bi mu bi mu paree la fa des ci ay béy mënu ko compter ci rey na ba mu des ak i xaraki leneen waaye ceeb la fa wàcce kimaanu yàlla la waaye ci xaal boobu yàlla nañu branché moom bañ mën a yegg ci xaal boobu ba ñaaree ko noonu yàlla defee ko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 التحيات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيق لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل إلحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان اللهم أمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات اللهم ثبت أقدامنا على الصراط واسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وسهب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة اللهم اجعل القرآن أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة اللهم اجعل القرآن مصباحنا في الظلمة اللهم اجعل القرآن مصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا بالقرآن من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آملنا وقرن بالعافية غدونا وآثالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبر سجال عفوك على ذنوبنا اللهم من من علينا وستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ظهرنا واعتقادنا اللهم أمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا وخيرنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وبركة ما تلوناه هدية واصلة متصلة منك إليك لروح عبدك مولانا مرجوف ولروح عبدك مولانا الشيخ تجان جوف ولروح عبدك بابكر جوف ولروح عبدك إبراهيم توب ولروح عبدك مصطفى جوف ولروح أمتك أميسين ولروح أمتك ياند جوف ولروح سير جوف آه، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وبركة ما تلوناه هدية واصلة متصلة منك إليك لروح عبدك مولانا مجوف ولروح عبدك مولانا شيخ نتجاني شريف جوف رضي الله عنه ولأرواح آبائهما وأمهاتهما وأزواجهما وذرياتهما ومن تبعهما إلى يوم الدين ومن تبعهما بإحسان إلى يوم الدين اللهم بلغ فما قرناه ونور ما تلوناه وبركة ما تلوناه هدية واصلة متصلة منك إليك لروح عبدك إبراهيم توب سين ومصطفى جوف وبابكر جوف وجميع أرواح المؤمنين والمؤمنات وذرياتهم وأصحابهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والأرواح آبائنا وأمهاتنا وأمهاتهم ومشايخنا ومشايخهم والأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين كريم بيرم أوكي كريم زليلك يا كريم منتخلا من القدرات يا كريم يا الله كريم زليلك مفتوحا تجمله بحضرة القدس يا كريم يا الله كريم زليلك محبوبا تخوله صفو البشارات يا كريم يا الله كريم زليلك محفوظا تمكنه من الكرامات يا كريم يا الله كريم زليلك مغفورا تنوره بفيد نورك يا كريم يا الله كريم زليلك موهوبا تورثه فيود نورك يا كريم يا الله كريم زليلك مرحوما تخلصه من البليات يا كريم يا الله مرحوما تخلصه من البريات يا كريم يا الله كريم زليلك مرحوما تخلصه من البريات يا كريم يا الله كريم زليلك مرديا تمكنه من رؤية الحب يا كريم يا الله صل وسلم عليه سرمدا أبدا والآل وصحبه يا كريم يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا na yàlla يا yal na يا gërëm yal يا yàlla nangu liñ mënta wax te mu nekk ci xol yi yàlla ko yàlla def ci yéen fatul ilahiya yal na yàlla leen ko leeru yàlla yal na leen ko alquran yal na ngeen ko xam yal na mokk ngeen ko mën a firi mën koo firi ci zahir mën koo firi ci batin yal na yàlla jox leen leeru laa ilaha illallah jox leen zahir jox leen batin yàlla fi ngeen fees del ci sharia yàlla fees ngeen fees del ci sharia fees del ci haqiqa fees ci leeru yàlla fees del ci batin fees del ci mbaax fees del ci xabul yàlla ko yàlla def seen xol yi yàlla bu fi sooy nee naa ñëppay ñëppay ñëppay rëbbi waaye yàlla bu kenn sooy mboolem ku fi ñëw yaa ngi rëbb waaye yàlla bul sooy looy rëbb ak mbaax yàlla yàlla def ci yow mbaax mbaax yàlla ko yàlla def sa biir xol bi mboolem ku sonn yàlla yàlla dimbali la mboolem ku sonn yàlla yàlla dimbali la ku bëgg barke yàlla yàlla jox la barke ku bëgg xam yàlla yàlla jox la xam ku bëgg xalal yàlla yàlla jox la alal ku bëgg njub yàlla yàlla jox la ko mboole seen lu bëgg lu ma wax ak lu ma waxut lu ma yëg lu ma yëgul yàlla yàlla defal la ko jërëm génee bépp tëju tëju nekk ci yéen yàlla ko yàlla sànni ci fatu fatu ci wërsëg fatu ci leer fatu ci barke fatu ci lépp yàlla yàlla jox leen fatu ci léppi mbaax léppi mbaax yàlla ñu ci am fatu léppi wërsëg yàlla ci am fatu xam àdduna am alaxira am àdduna am alaxira yàlla yàlla jox leen ko nopp zahir nopp baatin yàlla yàlla jox leen ko tànku zahir tànku zahir tànku zahir tànku baatin yàlla yàlla jox leen ko bi xaqi laa ilaha illallah ñu ngi koy ñaan suñu biir xol di ñaan yàlla ci suñu borom leeram ga ci barke laa ilaha illallah barke tajaliyatu ilahiya barke tasarufaatam ya yàlla yàlla nangul ñu yàlla yàlla baaxal leen yal na yàlla baaxal leen yal na yàlla jubal leen yal na yàlla jubal leen kenn ku nekk la ngay la nga bëgg sa biir xol bi xaw ma ko yàlla xam na ko waaye yal ko yàlla def ci yow te yàlla bu sooy mukk yàlla bul sooy yàlla bul wax ne bu ma yëgoon du ma topp juuf yàlla itam boo kenn wax yàlla yàlla bu ma kenn topp wax yàlla itam waaye ku ma topp sax yàlla bu wax yàlla itam ñëpp yàlla ñu xam ngërmande yàlla yàlla ñu xam mbaax yàlla ñu xam njub yàlla ñu xam mbaax yàlla ñu njub bu kenn sooy bu kenn dëng bu kenn sooy bu kenn dëng na ñëpp jub na ñëpp baax ah yàlla lii rek laa mën wax mu mënoon ti bu joxe damay ti bu joxe waaye waaye mënu ko yaa ko man yàlla na ko def jaam yii liñ bëgg ak liñ yaakaar yàlla ko def waaye Mamadou Diouf ruuxam nga lépp luñ jàng yàlla na ko fekk lépp luñ jàngi yàlla na fekk doom ja Mawlana Cheikh Tidiane Diouf waaye yàlla nekk ci soxnaam si nga xam ne moo ñu dimbal ci daara ji eh, dundam gën a yàgg gën a wér yàlla dundam gën a yàgg yàlla dundam gën a wér dina gën a yàgg yàlla na gën a wér mbo ci barki jàng fii yàlla na ko yàlla sotti ci ruwam gi mu yàgg fi lool yàgg fi lool te ànd wér waaye mboole seen ku fi ne mbooleem loo yëg ci ci yow yàlla yàlla def ko ci yow wallaahi lottu naa pour joxe ko waaye yàlla lottu de mbokk yi yàlla lottu de waaye yàlla moom nga xam ne lottut yàlla na ma leen wutu joxal ma leen yàlla na ma yàlla wuutu ci yéen joxal ma leen su ma xol bi nangu na gërëm na yàlla yàlla gërëm yàlla yàlla jox leen yàlla na yàlla jox leen bi nuuri